sëñ bi naa leen. tur bi naka national communication waaw comme ni ko ñu bari ci sénégalais yi dundee rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Pastef ak seen njaboot naqar bu mag lañ ci am. ndax euh, dafa demee ndaw. waaye dem gu berte ñëpp xam na ne accident moom du lu nit di xaar euh, waaye du moom donc ndax moom la ak yeneen ñaari membre sécurité bi muy ku ñu wax euh, Ama Ndaw ak ku ñu wax mussa Camara ñoom ñett ñëpp nag en plus de liggéey bi ñu doon def yàlla dafa def ñu nekk aussi mën naa ne ay membre Pastef ndax euh, li xaw a yéeme ci mbir mooy souvent bu ñu leen jëlee ñu liggéey après un mois deux mois rek dañ lay gën a sax adopté cause bi nan la ko bëgg euh, Fall nag yàlla dafa dogal ni euh, Pastef la nekkoon Pastef Dakar mm-hmm. mu repéré ko euh, indi ko ci communication bi def ko photographe attitré wu président ko mm-hmm. mu nekkoon koo xamante ne nii du ma wax ne mënuñ ko remplacer mais du jaf du yomb mm-hmm. ndax en plus de son talent dafa nekkoon jeune bu am ay qualité ci wàllu diine ci wàllu ngëm-ngëm surtout ginnaaw bu mu jàngee alxuraan nekk un homme cultiver nekk un homme de conviction boo xam ni nationalisme ak patriotisme da ko doon dund laata Pastef ñiy suivre page am yàgg nañ gis muy posté surtout si côté Afrique di wax ci ci ak ay idolam ay ñoom Thomas Sankara ak yu ni mel ndax lu mu gëmoon la lu mu doon dund la mais dafa nekkoon aussi nit bu discret xëy na parfois boo ko daan boo ko daan wax ak moom sax wala doon ko reproché dara. Mhm. discrétion nga koy reproché parce que naa ko photographe foog nga gën a njaxlaf. Mhm. mais moom euh, dafa amoon discrétion bu bu yéeme. Mhm. mais nag engagement mooy ça fait quatre ans cinq ans amul benn activité wu Pastef boo xamante ne nii wax nañ ko ko mu gàntal. waxuma la dara mais parfois sax moo may woo ne ma am na activité fële ndax mën naa dem mën na ko dem. mu nekk lu mu gëmoon lool bu jaree fanaan siège ay jour da koy fanaan siège ndax day photo ñëw monte envoyé événement mars yi weesu pendant un mois kër Ousmane la doon fanaan ndax bañ benn événement rëcc ko euh, donc bii passé tamit noonu tàggu na ma ne ma maa ngi dem Ziguinchor ma ne ko d'accord yoonu jàmm et cetera. Mm-hmm. def na liggéeyam ba mu sotti def na li muy def yëpp. Mm-hmm. envoyé message ne ma. foto yi monte nañ ko yónnee naa ko Mame Mbaye ma félicité ko ci la ñu gëj a déggante ndax bi mu xëyee la ko la ko ndog-ndog bi am ah, Ibrahima Fall nag euh, c'est perte la bu mag a mag a mag wax dëgg fa yàlla pour Pastef mais pour ñi nekkoon sur ci réseaux sociaux du di suivre ñëpp ndax ñi fi teewoon ya tey xëy na xaaj bi sax bokkuñu Pastef mais c'est juste que dimension nit ki la ndaw la mais man mi ko jege xam naa ne kilifa la donc di ñaan yàlla mu xaare ko aljanna euh, xaare aljanna aussi ñoom Ama Ndaw ak euh, Moussa Camara ci situation yi métti dem nañ seen kër yi démb mais xam nañ ne yombul ndax lu bett la surtout que ñoom ñett ñëpp ay soutien de famille lañ mhm. donc mu nekk lu méttee méttee métti di ñaan yàlla rek euh, fa ñu jëm gën leen fuuf fi ñu jóge waaye tamit li nga xam ne moo nekkoon seen mbébét ñu mhm. koy wax mhm. di ci dox gu guddeeg bëccëg mhm. yàlla def ñun ñu mën koo yeggali ba ñoom fa ñu nekk ñu am yëg-yëg bi ndax euh, ku ci mel ni Fall tàggoo na parce que bi mu liggéeyee ba pare bi xeex yi di am ci aéroport bi woo nañ ko ni ko mu def attention mu ngi ciy dem ak passion ci bi muy reporté parce que moo doon filmé di reporté mais tontoom ñëpp gis nañ ko mooy man soldaar la su dee dee naa ci toolu xare bi tamit ñeneen dinañ jël drapeau bi yeggali ko ba 2024 mhm. loolooy message bi mu mujjee lancé mhm. donc xalaatuñu woon ne euh, bi mu koy wax ci ëllëg sa lay dem mhm. mu nekk loo xam ne tamit euh, souvent les grands hommes ñoom ñoo demee noonu les grands hommes tey ban taxawaay la parti bu mag bii di Pastef fas yéene taxawu ci ñooñu nga xam ne ñoo génn àdduna tey. waaw Pastef moom Pastef moom ba ñu commencé ba léegi lu weesu ñu génn àdduna lépp lu xew ci parti bi mii di bànneex ak naqar dañ koy bokk ak suñu ay militant ak président Ousmane Sonko daanaka même yi nga xam ne dañuy dem ci yeneen anam yoo xam ne sax du accident du dara chaque fois di ngeen gis ñu président Sonko sol dàllam dem jaale ji ak fu mu mën di nekk. parce que ñun noonu la ñu jàppee ànd bi on on di dit pas camarades on se di frères et sœurs benn famille lañ comme benn famille lañ nag lu wokk kii rek keneen ki yëg ko looloo tax yi saa yu mel ni amee ba ci sax li xewoon ci mars bi nga xam ne ginnaaw ba ñu demee jéem a am luñ teg ci loxo njaboot yi nga gaañu la yëpp ba fii ñuy waxee tey ñëpp ñu ci amoon ay gaañu gaañu ñoo continuer di leen faj ba fii ñuy waxee tey donc lu mel noonu la ñuy wéyal di def ak njaboot gi ak waaye tamit ñi ci gaañu euh, ñu xam ne affaire bi famille la te képp ku ci nekk ak lu la ci mën di fekk duñ la mës a fàtte parce que li ñu tax a jóg moo moo moo ñu li ñu boole moo ñu ëpp doole mooy suñu réew mi na liñ ci namm te loolu nag euh, wax dëgg yàlla bu ñu ci àndee jàppoo ci nekk ci benn nekk ci famille dina tax incha allah mbébét boobu ñu yeggali ko képp koo xam ne ndog ndog fekk na la ci wala bànneex dinañ ko bokk ak yow def ci li ci war te ni ko defee woon noonu lañ koy defaatee fii te dafa sax am na ñoo xam ne dañu sax xaarul ndigalu parti bi diaspora bi nañu benn cagnotte ci Kopar Express ngir fexe eh, dajale le maximum de fonds possible daal di koy mën a dimbalee njaboot ñi dem mm-hmm. donc loolu euh, ci ADN u Pastef la bokk te incha allah eh, dinañ ko def ko ci anam yu mu waree. Euh, maa ngi leen di jaajëfal man tamit jërë ngeen jëf merci. ko waxee nit du yëg dara lu naqar naqar bi nag danga koy yëg nga xam ne naqar ngay yëg mhm. donte da ngay modérer sa langage mhm. donte da ngay gëm yàlla mo mhm. donte da ngay jooy donte da ngay ree mais da ngay am naqar au fond de ton naqar lañ yëg. ak vide boo xamante ni moo génnee suñu xol te naqar bi ñu mën mënuñu ko wax mën mënuñu jooy nañu wax dara loolu dañuy delloo lépp ci yàlla ndax ndax yàlla moo dogal du kenn yàlla moo dogal ni kii da doon liggéey liggéey bi mu doon liggéey fii la ko yàlla yemale mm-hmm. xale la nag mais liggéeyam rafet na te jëwam rafet na mais am nañ xol bu naqari. Mhm. mais nag dañuy sant yàlla ndax yàlla moo ñu ko joxoon. Mhm. te moo ko jël. d'accord tey boo doon wax ci Ibrahima Fall li may wax ci moom man maa ko jàngal métier maa ko jàngal photo maa ko jàngal caméra maa ko jàngal montage vidéo li ma xam ci moom mooy yaru na nangu na liggéey am na rigueur te amul demi mesure buy def day def bu deful du def. Mhm. parce que boo leen xoolee euh, parti bi mu bokk di Pastef. ak taxaw bi ñu ko taxawu nii ay mag rek laa fi gis te man xaw ma leen te Ibrahima Fall man naa ne 30 ans la dund xale bu ndaw dund 30 ans am am maanaam am li mu am nii man magam aw ma ko. man xam naa ne gëm naa ne man su ma dee woon tey benn journaliste du fa ñëw parce que man kenn xaw ma damay liggéey dans mon coin ça fait vingt ans maa ngi ci montage vidéo mosuma génn télé kenn mosuma interview te chaque jour man maa ngi interview nit ñi kon moom bu ma ko formé yàlla dogal mu génn àdduna yéen journalistes yi ngeen ñëw di ma interviewer kon moom moo ko liggéey dafa am rigueur bëgg liggéeyam bëgg liggéeyam boobu ak ngëm-ngëm boobu moo ko dugal ci Pastef moo ko dugal ci politique ba Ousmane Sonko gis ko wóolu ko taf ko ci wetam ñu boole ko ci cellule de communication bu Pastef mu nekk photographe bu président Ousmane Sonko ba waa jot na TV gis ni kii mën na caméra ñu dugal ko xam nga nit bu demee bay liggéey ñetti liggéey photographe caméraman monteur infographe di def affiche kon xam nga ni Ibrahima am na quatre métiers. quatre métiers ku amul fulla amoo fayda amoo passif doo ko am surtout jamono yi toll nii yàlla nag moo jeexal mission moom def na mission ñu toll leen dong lañ desi moo ñaanal ko yàlla yal na ko yàlla xare àjjana te àtte ko ci yërmande ñu gis ne bi mu jëlee soxna yàggul dara juste une semaine la tey looy dénk jabaram jooju waaw bi mu bi mu jëlee soxna yàggul neuf jours la mais yàlla xam nga yàlla buy buy bind nit dafay tracé vie am yàlla daf ko wax ci alxuraan ne man képp ku may bind maay tracé sa dund da ngay njool da ngay gàtt da ngay xees da ngay njuul da ngay gudd fan dangay bëri feebar da am jabar da ngay am doom wala doo am doom sa doom bi sa jabar ñaata temps ngay diire moom yàlla moo bindoon ni Ibrahima dina dund trente ans deux mois takk jabar bu takkee jabar neuf mois lay am ak jabar maanaam neuf jours lay am ak jabaram man yàlla ma jël ko. Hmm. loolu yàlla la neex mënuñu ci dara. yàlla moo ni kii fii laa koy jaarale hmm. tracé ko yoonam. Hmm. mais nit boo ko xamee. du tox du sàcc du fen du rambaaj musul wax lu ñaaw ñun am nañu yaakaar ci Ibrahima ni jullit la. te gëm nañ ni bi papaam def ci moom. kon moom bu demee bay takk jabar war na am choix. choix maanaam nit ku nekk yow sa bopp sa jabar ngay takk. bu dee yow da nga nekk jullit nekk ku dëggu nekk ku mën a muñ mais jabar jooju nga war a mën am kon man gëm naa ne soxnaam loolu la man am soxna soos la waaw li ma dégg ci soxnaam xam ko xam naa ne ku baax la te ku mën a muñ la waaye li ma koy dénk mooy nu muñ man maa ngi taxaw di wax ak yéen nii man tey Ibrahima li ma ko def si li ma ko fekk li ma ko dugal sama xol wax am na ñu ma interview tey suba wax naa leen ko ñaane man bu yàlla wàccoon teg Ibrahima bëgg a rey Ibrahima dama naa ko man jël ma parce que man maanaam marqué naa sama empreinte ci ñi ma xam ci li may liggéey def naa ci sama njaboot def ci Ibrahima def ci samay jabar def ci samay rak moom defagul dara. Hmm. moom mi ngi doog am jabar. Hmm. amagul doom. Hmm. yarul dara amagul benn responsabilité bu ñu ni kii lii la réaliser ci àddunaam. man def naa ko te moom defagul ko mooy su ma sañoon man man ma dem man. te man wóor man bu ma demoon moom dina ñëw def lu ëpp li ma li ma def parce que man je suis un photographe caméraman moom day def infographiste. kon lu mu bon bon ëppale na ma benn point. voilà adduna nag moo tëdd noonu ku nekk dafa am yàlla lu mu la sedd mm-hmm. mais nag soxna si bu bëggee dëgg-dëgg. Mm-hmm. su may waxee yow nii sama xol neexul. Mm-hmm. am naa lu ma naqari nag. waaye nag yàlla moo ko dogal. yàlla rek moo dogal li kon dañuy sant yàlla. yàlla mi ko fi indi. jox ko mission mu liggéey ba mission bi jeex mu dem. yàlla na ko yàlla xare àjjana. te gis nga ni ko taxawoo nii mbokkam yaa ngi fi waa parteem ñi ngi fi. lépp lu war dépp bi accident bi amee démb ba fi muy ba corps bi ñëw Dakar. waa taxaw nañ ci. documents yi ñu war a lijjanti de Nioro à Dakar lijjanti nañ ko jël corps bi yaar monsieur Djibi Gueye Ndiaye ak ñi mu àndal mënuma a mm-hmm. mm. ñu récupéré corps a ma ko wax. mais ñoo ko def te seen warugar lañ def parce que Ibrahima seen Ibrahima la. Mm-hmm. kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. vraiment yàlla moo dogal rek. Mm-hmm. dañuy nangu lii la yàlla dogal. cause accident bi est-ce que xam nga ko. Ah, mais cause accident bi ñun liñ ci dégg mooy oto bu doon daw ba mu yàgg pneu bi toj. loolu am na fi du benn du ñaar gis nañ fi euh, Cheikh Amar Cheikh Amar dafa nekk accident la lañ mm-hmm. dañuy pneu oto bi moo toj mm-hmm. gis nañ fi euh, Abdoulatif Gueye euh, Jamra mm-hmm. la même chose oto bi moo daw pneu bi toj xam nga yàlla buy nattu ni dafa fu mu koy jaarale mën nga nekk chauffeur plein pneu oto bi toj nga manque de contrôle oto bi daanu loolu yàlla moo naan yow chauffeur plein nga mais oto bi day daanu te loolu mënoo ci dara même bu dee yaa ngi concentré wu sa volant yàlla moo ne yow oto bi day daanu ñun loolu lañ dégg oto bu pneu bu toj daanu nit sax soxna si reer na ba suur toog ci photo yam seetaan télé mm. yàlla jël ko gis nga malaakal mawti buy ñëw mm. bu la fekk ci duus ngay sangu mm. da ngay jëkk-jëkk rek daanu ñu naan lu xew ñu naan lu ñu ni ci duus bi la daanoo deewul ci duus bi ay fanama jeex ci biir duus bi bu dee oto tamit noonu ay fanama jeex rek soxna si mais lépp ñun gëm nañu yàlla ñu ngi gërëm ñëpp yàlla moo ko dogal yàlla moo ko dogal est-ce que depuis boobu dégg ngeen président Ousmane Sonko ñun dégguñu président Ousmane Sonko mais ñi jege Ousmane président Ousmane Sonko mooy Jibi Gueye ñu wàllu wàll ñu yore wàllu communication ñu yore Pastef Dakar ñëpp ñu ngi jokkoo ak ñun kon ñun soxla wuñ sax wax ak président Ousmane Sonko. Hmm. parce que am na ñoo xam ne jege nañ ko te ñu ngi wax ak ñun. te lépp lu ñu bëgg ñoom ñu ngi ñu koy defal. Hmm. taxawuñ taxaw nañ ñu ci lépp ñu ngi nii taxaw. Hmm. bu ma sax woon léegi numéro président Ousmane Sonko laa soxla dañ ma koy jox. mais du ma ko woo parce que ñoom li ma li wax suñu diggante Ibrahima ñoom ñu koy def. voilà te loolu rek moo ci am solo. Cheikh Tidiane Fall laa tudd. ok jërëjëf Euh, ñëw dox si tànki njaal mu nekk tamit tànki mbokk ñëw euh, jaale si euh, kii di président Ousmane Sonko jaale si tamit parti bu ñëwee Pastef les Patriotes wante jaale tamit mbokk suñu doomu ndey bu fi jóge di leen di wax si gi leen digaale di ñaan ku fi jóge yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe di ko ñaanal parce que naam patriote bu daanu la wante martyr bu daanu la donc am nañ yaakaar bu baax a baax a baax que yàlla dina nangu ñaan euh, ay mbokkam ak kii di président Ousmane Sonko ak bépp nga xam ne jot nga ko xam wala jot jaxasoo ak moom ñu ngi lay ñaanal tamit yàlla may la xolu muñ parce que li metti na lool lool lool àdduna naam dëgg la demal maa ngi ñaw la wante accident moom amul kenn ku koy ku ci kuy kuy euh, kuy xaar accident accident day bettaate kon moo tax euh, choc bi nekk choc bu xaw a violent ci ñëpp te wax dëgg yàlla moom nekkoon na ndaw bi nga xam ne ni damoon naa ba xamante ak moom mu nekkoon ku amoon uh, itte ku amoon pas-pas ak ku amoon Pastef te yëgoon ñit daanaka des fois sax dama doon dem ci xew-xew uh, mu bàyyi Ousmane di ñëw ci man di ma photo ma ne ko yow yow yow uh, mu ne ma déet ñun man moom opposition laa fi nekkal donc wax dëgg yàlla je garde ce jeune homme de très te yéen tamit de la presse maa ngi leen di jaale parce que seen mbokk presse la woon photographe la woon un garçon très engagé dañu ñaan yàlla rek lii moom mu mu gëj fi. parce que àdduna moom ala kulli yàlla yu mel ni dina am. wante lii moom dañuy ñaan wax dëgg yàlla na fi gëj. te di woote jàmm ak salaam ci réew mi. Ah, ban message yi ngay joxe parce que jamono ji gis nañ ne ah, langum politique bi bëri na coow euh, tout récemment Pastef attaqué nañ ko fële ci Ziguinchor ak ko euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jiyee waa këru du Ka yow en tant que leader ban message ngay joxe ci loolu. moo tax ma doon wax sànq maa ngi ñaan dëkk bi am jàmm. parce que. accident la ñu wax ñoom bu ñuy jógee Ziguinchor xamuñu ci ban état d'esprit lañ fa jóge parce que dañ fa jógee bàyyi fa coow bu bëri donc euh, man je connais très bien le tronçon euh, Ziguinchor euh, Dakar jógee Kër Ayib di dugg Kaolack ñëpp xam nañ ko tali boobu baaxut donc nañu ñaan yàlla jàmm sax Sénégal parce que c'est sûr et certain que ñoom bu ñuy jógee Ziguinchor ils n'ont pas quitté Ziguinchor avec un état d'esprit apaisé donc wax dëgg yàlla ñu ngi ñaax ñëpp képp ku nekk ci lang politique bi euh, na doxal ak euh, ànd ci ak gëm yàlla parce que am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur yàlla noppi na démb tey soog a ñëw donc ñu ngi vraiment ñaan ñëpp nañu ànd ak dal parce que des fois ñun ñi dañuy yëngatu ci politique wante suñu gestoo suñu ginnaaw euh, ñuy ànd ak ñun sax daanaka ñoo ñuy ëpp xadar mm-hmm. donc moo tax vraiment maa ngi ñaax ku ci nekk ci ñun nekk ci lang politique bi ñu ngi dem ci ay élection nañu ànd ak dall nañu ànd ak xel parce que lii yëpp ci nettali lay mujjee ëllëg juste en français euh, monsieur le maire euh, la raison de votre présence oui je suis venu aujourd'hui pour euh, d'abord présenter